kilifa gu mag moo génnoon àdduna muy xalifu Cheikh euh, euh, Seydi Hadji Malick ñu koy wax Serigne Abdoul Aziz si Al Amin l'unificateur parfait avait rendu l'âme il y a de cela aujourd'hui trois ans ñu ngi koy delloo ñaanal euh, yàlla xare ko ci aljana yi gën a kawe ba muy génn àdduna kon juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent la am muy 89 ans moom Serigne Abdoul Aziz si Al Amin nekkoon fi xalif général des Mourides Euh, autant pour moi des Tidjane euh, wuutu yoon fi ki nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha si mm, bu euh, njabootu Seydi Hadji Malick Moustafsidine wala Moustafsidaat si wala ñoo ñi nga xam ne ñoo nga fare ca suufu almakhtum ba ñu noppee ca loola nag ñu fàttali leen ne moom mu ngi gane woon àdduna le vingt ca 1928 kon doomi Serigne Babacar si jooja ñu doon woowee maam Abdou Aziz Sy Al Amin daan dof jëf yu rafet daan dox diggante tarixa yi ak këru diine yeeg jàngu bi senegal nekk benn bopp l'unificateur s'en est allé aujourd'hui on s'en rappelle il y a de cela trois ans ñu déglu ay kàddoom barkeelu ci balaa ñoo tàmbali waxtaan bi on regarde. yàlla nañ fi mu ñëwit yàlla nañu dàqal ma jiitu rek. na yàlla fay leen ci seen coono wax dëgg yàlla sonn ngeen ñëw duggi saxaar dugg ci oto yi jaar ci tali yu baax yeeg yu bon yi rang rang rang rang wàcc ci fa seeni lali divan di tëdd ci basan ci fa seeni frigidaire di naan ndox mu tàng ci fa seeni xar yu duuf di dëñe walla nga fande sax walla nga jënd mburu rekk yéey waaye dem aljana jar na ko te itam daf ni woon jàmbu yàlla gërëm loo laal ci moom rekk bokk ci ngërëm la te yonent bi jàmbu yàlla gërëm na radiyallahu anhum wa radu moo ko wax ci alquran kontaan naa ci yonent bi ak ñi mu àndal kontaan nañ ci man kon lu ci nit laal rekk bokk ci ngërëm li jóg dugg oto sonn wàcc lan nga yonent bee tax nga jóg kan moo la ci woo Seydil Hadji Malick te xam ngeen Seydil Hadji Malick du fo lu mu woo taalibi rekk njariñam a ca nekk waaye njariñu boppam taxul muy woote moom li mu bëggoon am na ko mooy yàlla nangul kook yonent bi waaw te nee na Cheikh Ahmed Tijani jàpp na ci loxoom ba ci Muhammad ni ko Malik mii la daan laa la doon wax waaw moo ko wax woo juróom-ñetti taalibeem yi gën a mag invité leen reer ñu reer ba nag mu leen dafa am marta bu bu ma yàlla defal te Cheikh nee na ma boo demee wax ku ku gëm te bëgguma koo wax ci mbooloo kenn di ci sikki sàkka di dem safar te yéen lu ma leen wax ngeen gëm ko Cheikh Ahmed Tijani jàpp na sama loxo bërki bi ba ci Muhammad lu ko Malick mii la laa doon wax yonent bi ma jëlal sa gannaaw ba mu mucc sama gannaaw ma def ko bàggal mun ma yaa ko ma sa am ci nitu yàlla yi demal mooy nit ñuy tiitaroo kon bis ni tey la def ñetti at ci peggi euh, waajuram sëñ Babacar Sy bis ni tey la def ñetti at ci peggi euh, Seydi Aj Malick ak euh, mbooleem ñoo ko jiitu ak ña mu jiitu ca këru dëgg ñu ngi koy ñaanal aljana wéy ji nekk ngën gi dëkkam. te mu sax fa dàkk. kon tey lañ ko doon fàttali noonu la ñu ubbee émission bi waaye dafa am loo xam ne dañ leen ko waxoon. Euh,